Tapha Diagne maa lay siyaare maa ngi bëggee waat ñëpp maa ngi bëggee ñëpp mais Tapha Diagne Aliou Keita dafa yewaate ndax parce que Aliou dafa ma wax li ma wax ne ma yaa ko wax ma ne ko ñëwal jël si ko Aliou nekk si ay affaire am Aliou dafa yewaate mais yaako fi am yaa ko fi am ndeysaan damaa yërëm supporter Real yi sànq dama leen a kaañoo kaañoo ba mu bërus pa yow na ngeen def sant yàlla baax Modou sa man Barcelone. Eh, waaw non kii Barça mooy sama équipe man Barça mooy sama équipe laal merengue yi xam nañ ma. xam naa leen man ma <laughs> Barça rek. waaw parce que affaire yi xamal la derby la <laughs> waaw football bi dafa football man football mooy sama sport. mooy sama premier sport man. ok waaw football mooy sama premier sport. dama ko bëgg dama ko bëgg. waaw bëgg moom wax dëgg yàlla moom laa gën a sax di concentré wu nii. mais man loolu loolu dama ko seetlu ci mbër yëpp. mbër yëpp du ñu tardé benn championnat dañuy seetaan lépp. non man moom dama koy seetaan carrément dama seetaan lépp waaw. seetaan waaw waaw carrément sax. Ah, ah. waaw Barça mooy sa équipe. mooy sama équipe sa xel dal na. bon ba kay sama xel dal. bi équipe daaruma daaruma ba sonn. billaahi <laughs> daaruma doon jooy rek. li neex football xale koy def. waaw xale ay xale yu ndaw lañ yor. billaahi wallaahi taala. ay boo yu bëgg équipe doon dof dof lu boo leen bëggee suba ngeen ñëw ñu GMS amical. Mm. ñu ne yéen. 17 laa lay ñëw 17. mais bëggee naa la maa ngi yaraax ñëw naa fekk fii waa dëkk bi. Mm. comme d'habitude ah bu ma ñëwee yaraax yaraax. Moussa Ndoye. Mm. waaw loolu sant yàlla la parce que maa ngi sant yàlla julli sant bu baax. di sant suma ñaari waajur di ñaanal suma sëriñ sëriñ Babacar yàlla ñaari tuur sot ay leer si bàmmeelam ak bépp kilifa bu jiitu di ñaanal sama waajur bu góor yal na yàlla sotti ay leer ci bàmmeelam bépp waajur bu jiitu ñi fi des yal na yàlla yàggal seen taxawaay ànd ak wér ak wér la di ñaanal ñëpp nag monde entier may nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw di nuyu ñëpp di nuyu uh, axlu làmb di nuyu mbër yaraax yëpp commençant jël nuyoo yëpp tekk ci loxo was jàmbaar Pape Diop Boynaar Loso caatu yaraax ñu tasal ma yi nekk sama ginnaaw di nuyu staff yi nga xam ñoo fi nekk jël Père Ndiaga Père Ngouda Aliou Sarr Souleymane Diaw Bàcc Mbaay ñëw ba lii tey nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu nag ki nga xam ne mooy moom moo jara nuyu muy làmb démb Aliou maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu suma gars yi ki su mel ni Mansour euh, daam ñoom ñëpp maa ngi nuyu ak Pape Laye ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn daal ku lim juum nuyu mbër yarax yëpp nag encore une fois maa ngi nuyu mbër yarax waaw maa ngi nuyu mbër yarax yëpp. ñooñu sax laa jëm parce que da nga da nga fi wax benn groupe léegi. moo xool ma seetlu tur yi mais ñi ay potentiel la nga fi wax ñi ñëpp ku ci nekk war na mën a nekk roi des arènes. incha allah rabbi te incha allah booy gis naa si ñoom roi des arènes te incha allah dinañ ko doon. du koy maye liggéey. liggéey moo koy maye te ñu gis. liggéey bu mel na. bu métti liggéey bu méttee métti ci tous les plans nag waaw te ñu ngi si incha allah ñu ngi si bu baax. dafa am benn affaire bu ma gis bu am parcel ñu groupé ñoom mbër yi noonu noonu ñu mel. mais ay résultats yu ay résultats rek la ñuy indi performance yu baax la ñuy def boo ma jàng ci ne ay mbër bu nu booloowee bennoo dund sport kase ñu bañ a dund làmb mu doon sport ñu ñemente di lekkandoo di defandoo lépp bu buñ ko defee yaakaar naa ni dañuy am ay résultats. waaw loolu loolu moom su ma su ma waatoon tamit du ma kaafara am na rax. ok ndax li tax lu ko raw sax am nay rax ndax tey jii man damay sol yëre wës wës day sol yëre caat loo soo noonu. boobe amaa noonu keneen keneen noonu ñun boo ñu fekkee suñu biir si kii la ñuy fréquenté si lambu dem la ñuy fréquenté amul lenn lu ñuy waxtaanee lu sport. ok ñun foo ñu fekk mbalagante ñooy lekkandoo ñooy naanandoo ñooy tëddandoo. bande de copain ngeen. waaw fu ñu fu tey fu ma neex fanaan su ma neexee. fanaan kër wës wës su ko neexee mu jël sama caabi dem sama appartement. ñun amuñu benn kii amu leen problème boobu wallaahi li may wax nii dëgg la si ñun dëgg la si. te mi ngi am. mi ngi am mi ngi bu ñu nee jël lamb yaraax ci jamono bi Moussa Ndoye ñu jékki-jékki gis xale yi def groupe def masse ñoom sa ginnaaw yaa ko créé ñoom ñoo ko créé waaye raaxoo ko dox nu mu demee. waaw loolu loolu dama sant li tax ma sant si dox naa ko deux ans di ko dox di ci wax di ci dox di ci wax yaakaar naa gis nga li yàlla dogal biñ koy dox mu ak wës fii lañ taxaw fii ñu toog tey. wës àdduna mënul neex bañ bëri. milliard boolewuñu. waaw ci àdduna rax àdduna mënul neex bañ bëri. pourquoi pas mu ñu doon benn. ñu koy dox di ko dox di ko dox yàlla nag def wës nekk ni ka nga xam ni wës nekk ka nga xam ne rassembleur la wës waaw day defar mu nekk rakk ja nga xam ne tamit ku neex a àndal la muy rakk yi topp sama ginnaaw yëpp ay rakk yu neex a àndal lañ hmm. wës bi ñëwee ñu waxtaan si ma gis ko mu jóg si nag di def ma ëppale ko ni ko def du def lu ma yëgul macha allah du dugg lu ma yëgul lu mu nar a def tey yaraax daf ne mu loolu li laa bëgg a def ak lii ak ne ko amul problème ëppaleel demal parce que am na ndigalu kilifaam. gis nga bi ngeen ko defee gis ngeen ni yaraax commencé mel ci laa. waaw moo tax amul kenn ku ñëwee taxaw ni fan si club Moussa Ndoye ngi wala fan si club Wës wala fan si club Thiatou Yaraax. benn lañ. man a Sa Thiès ñu mujjee bëre. de. Mhm. waaw ñetti at. waaw nekk ko. si samay mbir nekk sama bopp. tukki nga lu bari nag. waaw tukki naa fi ñetti yoon. parce que li ma lay laajte ñu naa tukki nga te am sa xarit bi ngay fekki foofu sama waay la kalaamu kalaamu sama xarit may wax ne yaa ngi fa Moussa kalaamu maa ngi koy nuyoo passage kooku l'infatigable laa ko tuddee <laughs> ku baax la l'infatigable ku baax Moussa Sarr kalaamu mm. l'infatigable moo ak soxnaam nday debbo waaw Cheikh Diop Atta mm. ak Cheikh Mouhamed ñun ñëpp maa leen di ziar leen gërëm ñu sonn lañ ñu sonn lañ ci sonn lañ si man sama jëmm ju xeebu gi ñu sonn lañ si man parce que dama gis dañuy rey seen bopp dinaa boo fa nekk trois mois mbër moo mbër nekk ci kër trois mois dafa métti te suma gis benn jiixi jaaxa sama diggante ak ñoom Moussa ba léegi dalay woo di la conseil conseil mooy que defal nii boo defee nii nii dina am lii du fi lii du am mais loolu mention spéciale Moussa Sarr maa koy maa koy nuyu bu baax baax baax. mais toog toog ñetti at ba combat bi jafe. ngay voyager loo doon uti da doon liggéey da nga doon uti xaalis da nga doon entraîner. non non dama doon dama doon dem di entraîner loolu maa ngi koy gërëmee sama sama sama sama bi ki su mel ne ñoom Mansour. ñoom gars yi ñoom ñëpp ñoom daama ak gars yi yëpp entourage bi yëpp daal ay ñoom Pape Diouf ñoom Ndongo Faye. et tout ça yooyu tey bu ñu demee loolu am chaque jour dañu maanaam ah toog bi nga toog amul entraîné. may dem di entraîné su ma demee def 3 mois ñëw bu dara sottiwul ñu ma dematal suñ ñëwee bu dara sottiwul ñu ma dematal bu dara sottiwul ñu ma dematal ba yaakaar naa man dama jàpp yoon sax sama combat mbéy guy gi taxaw. waaw ok sa combat ak guy gi taxaw mbéy gi doon xale. boo xamante ne yaa ko jiitu si làmb. yaakaar naa ko la jiitu si néeg bu la moo la wax ni ngay toogee. yaakaar naa la wax. Eh, mbay mbay daa tax ma ne déggul sax yi ngay wax. waaw non man ma sax mu dégg li ma wax na gis sama jëf rek. léegi nag dañuy dugg ci sa combat dañuy dugg ci adversaire bi parce que combat bi njëkkoon na yàqu moom sax nee yàqu bi mu yàqu woon yaa doon tappale parce que danga dafa laa jekk woon ak yooyu sa maaraay yi xaw ma daal nu loolu moom moo gis yooyu ay jekkoog ay maaraay yooyu man combat bi si entraînement laa ko ak si sama mën a bëre ak si gëm gis nga galaaj cinquième position la wala sixième position si affaire làmb muslaay la. man entraînement la xam hmm. ma ngi ci entraînement bi man dog dalé dama ko nangu santé ko yalla man nak mi ligay di wax ay ñaar wax wala dag santé ak yoyu duma ak mom waaw biñu ñu bi mu gaa bi ma bi blessé mom woon na ma bima way lim wax ñaanal nañ waxtan man ci lola laa sukkandiku ah. limi wax nak mom mom la concerné kam bo waxee. man maa ko si yokk non si. mo bima wowe deg na naa ko seetaan naa émission ay. dégg nga lim wax lepp deg na ko parce que man bantama duma raw dama ci seetaan. même bu ma waaw seet na nit moom booy bëri te ñemewoon ko sax jarul nga ko jël. Hmm. non non non non waaye mi ngi ñeme lu mu xamut. ah wallaahi al azim. door na Moussa Lo daw na Sonko Modou dugal na gauche dugal na droite door na dugal na hypercut attention da nga xeex ba jëm te saako xale bi def na changement de pied jàkkaarloo ak moom. kay la ila la. bu dee xeexee Moussa takk na ko xale rasu na. takk na ko rasu na boor na ko daan na ko. daan na ko Moussa daan na ko waaw. lamba nga moom perte bi moo. 2 minutes 27 secondes. pour kenn jugee indi tey doon ak Tonnerre ñoom ñaar Moussa Ndoye door na Tonnerre laa ilaaha illallaah attention Moussa Ndoye door na Tonnerre génn na ci biti Tonnerre génn na ci biti Moussa Ndoye na Tonnerre génn na ci biti laa ilaaha illallaah Moussa Ndoye ak Tonnerre daje nañu Tonnerre bal na Moussa Ndoye Tonnerre bal na ko ñoom ñaar ñoom ñaar fu ñuy mujj. Moussa Ndoye ak Tonnerre Moussa Ndoye nga wut fu mu jàpp mook Tonnerre Moussa Ndoye dóor na Moussa Ndoye dóor na mook Tonnerre Moussa ñoom ñaar ñi ngi jàppante ñi ngi bële ci suuf Tonnerre bëgg daw na plaakaal Moussa Ndoye bot ko ko bot na ko bot bu rëy Bruno daan na Tonnerre jël bu rëy la ilaha illallah salo sant tolluwaayu combat bi ci yow dama ko fonk en 100 dama ko fonk fonk dama ko ay nii ak de dama ko fonk ci tous les plans ci dafa am fu mu la war a dafa am fu mu bëgg dem te incha allahu rabbi dinaa fa dem. Hmm? waaw bu soobee yàlla. ah mbay gi nee na xale la boo xamante ni moom it daa am lu muy wut xale la boo xamante ni daa am lu mu bëgg te xam na ni yow doo doo cuune doo n'importe kii ci làmb. loolu moo tax mu jëlate ne daa am lu muy wane te da koy wane force. waaw xam nga dafa am lu mu wax. nee na cuune làmb. lamb lamb lamb léeg day def nii léegi mu defaat nii. ñu nangu ko. waaw mais yàlla métti xam na ni xooluma sax nii arrière pensée sax aw ma ko sama combat bi. nga yow xalaatoo ne mbay guy gii da lay. jamais plus grand jamais. xalaatuma ko wallahi alazim li ma bëgg a def muy bëre ma koy def si de. bu ñëwee ci wàllu bëre keroog nee naa ko gars yi ngay di dem bëri ji combat boo xam dañ ne. ki ngay bëreel moo la ëpp moo la ëpp bëre. gars yi nee na yow yaa ko ëpp bëre wax naa ko. non dama bëre moom dama ko daa xam. dàq. yàlla mu yàlla xam ne dama ko daa ko bëre. dama ko daa la ñuy waxat. dama ko daa am na am na ma aussi mu ne ma mbay bi mu xamee ni bëreem dafay am des fois fu muy caler fu muy limité dafa am yo dafa dem yokku ji. man ko lan la yo mu ma li nga xam moko meuna yo bu muy doole. musa wal do ëpp ma gis na mbay de musa musa mbay ngan na de. non lo man yo ay ngand yo tax loolu ay deuxième la digg deugero gën man ay ngand yi wax ni sax man ci li man bi ma sama combat yi passé ma jël poisson sax neexuma ku ne xam ne Moussa buñ ci mëgoon nañ xam na si mëgu ma si mëgu ñu dongale rek dugg ci asab bi. ban année nga nga duggoon ci lamb yow. man lamb 2010 presque laa fi dugg ah. lamb teel a teel a bëre moo ma dugal ci lamb. bi ngay bëree nekk woon punkal man bi ma sa papa di génne si lamb. waaw bëri naa ñaari combat nga xam ne aw ma licence LD lañ ma doon la laa doon bëri. licence déposée waaw. ñu loolu nag parce que aw ma mënatu am quarante. ok ok. en tout cas nee na moom dangay ngay moom te xeex bi mu ne daa ngi xeex. non loolu moom moom moom moo tal xeex moom moo xam lu mu bëgg rek dinañ ko def dinaa ko def. naroo xeex ci combat man non dama dégg ñu ne mbay bu jàppee dama bëgg mu jàpp ma jàpp su ko bëggee nañ def bëri saalum saalum na jàpp ma jàpp ñu xool mu am lu muy lu dama ko ko ëpp dama ko dàq bëri ëpp ko doole maa ko mën fuuf boo gisee wax nga rat rat rat rat yow. mooy xamul sax dem rek. yéen ñaar ñëpp yàlla da leen yàlla yàlla da da leen a tànn ci làmb li tax. vingt ans wu Bawol production bëre ko yombul parce que Assane def na vingt ans ci làmb te yéen a yéen a ci dem yow yaa tam bay bëre combat bu toll nii tey bu Moussa Ndoye gañee làmb ji dinañ ñi moo gañee vingt ans wu Bawol production loolu histoire da koy jàpp loo wax ci bëre combat bu mel noonu ba pare man li ma lay wax nii Moussa booy Bawol Bawol bi mm-hmm. mer na de non mais yow mer moom moo mën a mer waxtu ma ak man. parce que nee na combat bi renvoi bi ko njëkk a da koo métti. waaw moom kon gëmul yàlla man man dama gëm yàlla de gëmul yàlla kon man li li gis nga combat bu ma gars sama saako sax kon nit bi fàtte nañ combat bi. ak blessure bi noonu barki alxuraan dama ko doon bëri ji. billaahi wallaahi taala dama doon bëri ji mais li may wax ñu ñu ni nii man ñii ñii duñ ci léegi man. bu ma bàyyiwoon damay dem bëri ji yow ma leen dara daluma dañ doon wax di incité di incité ba ni ma dala dal ma leen dara daluma. mais bi ñuy gis man ak ñoom ci yenn détails yi ñu xam ne kii nii bu ñu ko bàyyee dina day dem pour sacrifice boppam quoi. te dafa am benn dafa dafa am benn lu ma lu ma sa papa daan wax sax laay wax du ma ni lu ma benn paa daan wax. sama dafa ne Moussa ma nekk naam bi ma koy wax dafa ne Moussa lamb du njàmbaar. déedéet. Eh. du njàmbaar de. billaay walaay taalaay te damay dégg léeg-léeg nga koy nga koy eh, du gëree. te am na fa xam ba fa tolloo. ay nit ñu man moomu sama bopp en 100 pour cent. mais yow am na lamb yoo xam affaire yu gër yee nga ko ñaaxee. c'est moo tax loolu loolu nag moo dañ Moussa Ndoye dafa dafa dindi si bopp bari léegi. léegi comme Moussa Ndoye day ñëw nii loolu dafa dindi dafa dindi si bopp bi man dama am ñu nekk si man dañuy sonn mu dafa am ñoo xam dañuy sonn dañuy sonn. day war de. barke dafa am boo ko daanee baax ba boo ko boo si amee ndam dina la yóbbu sori. waaw moo si amee ndam dina la yóbbu sori mais moo si amee ndam ndamu ndamu ñii la <laughs> yaraax yi yaraax yi préparé combat bi wallahi dañuy préparé combat bi. dañuy dañuy pare dañuy préparé combat bi. billahi ñu ngi préparé combat bi. ensemble booy yi daa mel ni fi nañ de booy yaraax yëpp. billahi ñu ngi préparé combat bi. tey bi du looy yëgle gis nga luñ ah, bettante la. mais tey bu fekkoon lu ñu wax la wala barke prévoir ko fa léeg kon barki alxuraan xam kenn waxatu kenn waxatu ko. tey boo amoon kàddu boo xamante ni nga koy yëkkati pour say frère sénégalais mais pour wax ko ñi nga xamante ne ñoo nekk aussi ci kujéeg politique bi wala ñoo nekk ci nguur gi lan nga leen di wax. waaw côté politique moom man dama nekk nga xam ne lu jëm ci côté politique euh, politique dama ni ni kuy rek pour defar sa dëkk la wala defar sa gox bu dee effet ci li ñu jëm muy affaire député dama ñaan yàlla bu ci bu ci kenn euh, ñiiroo wala ŋaayoo bu ci kenn xeex bu ci kenn ki ku yàlla war a fal allah kulli yàlla dalay fal. li li nga war a doon kenn mënu ko te mënu ko tere doon kenn mënu tax ba li war a doon doo ko doon yàlla moo ko def kon bu yàlla ku yàlla mën a fal d'accord ànd ak sa ka yàlla fal jox ko nag ànd ak moom liggéey. Mm. tey jii moo ñu fi nekk nan leen ñaanal li nga xam ne moo tegu seen ndodd muy dëkk bi. Mm. nañ nañ ko attan mm. liggéey. yàlla dëppoo ak li nit ñi bëgg yàlla dëppoo ak li nit ñi bëgg que man li may rek man je suis mal placé que di wax ci président wala leen ak leen ak leen sax parce que léeg ñun fu ñu mën a dëkkal moom da ngay mbër day wax ci politicien sax ñu dafa ànd ak moom. léegi ñu àndul ak moom wul bi dugg nekk sa kaw di xeex di la géer rek yooyu tey yooyu ñu dépassé nañ foofu. yow waaw man nekkuma foofu man ku ku yàlla teg nangu naa man dama nangu dogalu yàlla suñu borom ku yàlla teg ci dëgg bi nangu naa mais nag ku si ne am nga foofar far. am nga foofu far waaw. macha muy lu am solo Assane promoteur bi loo koy wax. waaw moom man mention spéciale laa koy wax saa su ne parce que waxoon naa ko ni ko man ku ma lebarul bëccëg ku ma lebarul ker ma fay la guddi hmm. te Assane fareegu ma sax maa ngi moom nee naa ko bu la neexee lépp looy dugg man Moussa Ndoye dinaa si dugg ndax loolu lu ma jëflante ak moom la hmm. Assane du question ko dara defalu ma dara tëgal na ma combat nag te cela ce n'est pas la première fois mu tëgal ma combat ba muy def yaakaar drapo hmm. drapeau Aïda Mbodj maa ko jël maak Alioune Seye ñoo ko bëri si stade Iba Mar bu mag bi kon tey bu wul bi si sant wax dëgg yàlla moom remonté sama moral man ndax man bi ma blessé sax lii na mais dama ma woo wax kaddu gor yaa nga xam ni dama xool dafa sedd ah, waaw mu ne ma mu ne ma Moussa man da nga waroon gaañu gaañu nga hmm. million ma gënal man sa jëmm jooju mu ma gënal ay million hmm. sa jëmm jooju mu ma gënal ay million kon loolu sant yàlla la ma siy sant bu baax a baax a baax nag combat bi woo naa si ñëpp. Ah, waaw woote waale. ñëpp. Mia. Hmm. sama darmanko Mia Amar. Hmm. saalixaat bi sama saalixaat bi maa ngi koy woo. madame Amar maa ngi koy woo Omar maa ngi woo. di woo sama darmanko yëpp sama seex nag maa ngi woo. doomu Omar yi seen ak ñëpp bàyyiwuma leen. waaw di woo sama darmanko bi maa ngi koy woo Mia Gise Mia Mia Amar. Mia Amar maa ngi woo bu baax a baax a baax a baax sama darmanko bi yow sa seex yi nag bëgg naa ngeen ñëw. sama cheikh ndaw yi bëgg na ñu ñëw di wo way rax yépp yépp yépp kilifa diiné yi kilifa aada yi képp ka nga xamni da ngay téy kurus wala nga nek si jakk wala nga si juma ma ngi lay sakku talal sama loxo man seen dom ji xam nga di ñaan ñëpp bayuma kenn tala tala jum mangkoi ngi koy tala sok ma ngi koy sant di ko gërëm di ko woo combat bi di wo ñëpp bayuma kenn. mo lamu ji bu ko mbay gi ñun fu ko raw lañ ko tek may allahu di ko xamal ne ñun dañoo dem Jinda Bazul, Bazar, Falya Ngajor Jovior, Fimla, Simal Ngoye Ngoye ngo dem ngeen Simal. dem nañ Simal Simal man fala deug wa man duma fay sax ngeen ci ten ba. Fep la dem est ce que yaa deg ngir lamb ji mom moñu ko jaral ndax xamul ta lamb ji wa yara dañ ko soxla. nekul yo ko soxla mbay ñi dem nañ simal de fep boy, fep fu lamb jar pour ñu am ndam rek ñun dem nañ fa te lamb ji moko jar est ce que est ce que deg yarax dañoo mobiliser wu wos jambar billahi wallahi wa taala boko ko tëjaloon moom ak musa ndoy dëggal mom ak mbay guy gi mu daan mbay guy gi gis jël caatu yarax la même chose mais lambu ji mo tollu bo xamne lambu lambu gox la ñun ñu nekk doomu yarax bokku yarax lum lum ko jaral jaral lañu yala ko di ñaan yalla yalla defal ñu ndam gu sedd guuy yo de la xamal ne ñun buñ paré ni ñu ngi ni dañuy jël gal dem dangaan sambu dem outali wat dem dem nekk su suñ suñ affaire ah. lambu jeñu ko jaral wa salam ba fay dem na di nga yomb di nga romb Diofior <laughs> di nga romb Fimela di nga romb Jilaas maay waaw waaw dëkk yu mag sax dëkk yu am cosaan dëkk yoo xam làmb dafa am cosaan dëkk pour découvrir làmb kase waxuma sax ay ñaan ak yooyu mais làmb làmb ni mu ma ci dëkk yooyu dafa doy waar da dem ñu ne la fii penc mi fii la diw daan bëree dafa doy waar dëkk yooyu di woo fukk penc ak ñaar yëpp mm. lépp képp ku askanu lébu nekk rek ak yu bëggee Moussa Ndoye fukki penc ak ñaar ngor ba ngor ba jalaw bàyyiwuma kenn. ma maa ngi woo ñëpp. di woo tund jë nga xam ne waa Kayar. waaw waa Déni Biram Ndaw. bàyyiwuma kenn di woo waa Tëngéej. Mm. waa Yaraax. Mm. waa Caaroy. Mm. waa Barñe. waa Ñangal xam nga waa Sendou. bàyyiwuma kenn kenn kenn mina ma ñëpp ba yéen di waa Kër Mbay Fall. Mm-hmm. waaw waa Kër Mbay Fall Lagrose fa ma nekk. waa Lac Rose fa ma nekk maa leen sant di leen baax di leen baax di leen gërëm waaw sëñ Xaadim manqué bu baax waa Touba yi ay ñoom saa Touba ñëpp samay sëriñ waaw sama xam ñoom sëñ Abdallah sëñ Abdallah Diouf manqué bu baax sëñ Abdallah Diouf manqué bu baax a baax a baax di woo sama gaay yëpp bàyyiwuma kenn di wax lamb ji soxal nañ ko kon waaw di wax naan lamb ji daal. man mbër laa. waaw lamb ji daal lamb la nga xam ni soxla soxal nañ ko lool. waaw soxal bi ñu ko soxla. Ah. si lépp lañ ko soxla nag. Ah. waaw bu nit ñi yaakaar dañ ko jëlee légèrement non non non. waaw am na lu la yóbbante woon de mm-hmm. xooloon na la ne la yow Moussa dégg nga li mu la waxoon loo ko toon. waaw lépp loo a wax la <laughs> 10 incha allah rabbi bu arbitre xam. waaw yaa dirigé su ma sañoon 17 heures pile nañ moom non tel na nak non bëgg rek bu mu ñëw xaa ñu bëgg 17h bu ñu bëré 17h 17h dem ñu bëré wat 18h ñu bëré wat mais contact si waaw ñu contact si man seur sama seur lay gaddu ñëw ha ba euh, mbay sama seur lay gaddu ñëw de man naa fa di gaay def ni di ay gi sama seur lay gaddu ñëw lama jeex lañ ko soxla de mais bala nga koy xam mbay dama lay inviter ndeysaan dama la invité de bu la neexee. bu ñu ñëw jël si la mooy liggéey. gars yi def photo joie samedi. Euh, veillu lamb ji. ngi dégg. samedi bii dañuy def photo joie. gars seen t yëpp génn na. Euh. gars yi def photo joie samedi bii bii. bii ñu xëy defaat caravane ci dëkk bi. wan ñu estat dañu bëgg Assane Ndiaye une heure une heure pile ñu fesal ko estatam dañ ko war a fay. waaw loolu la yoon dañ ko war a fay ñu loolu lañ bëgg dañ bëgg fay Assane. waaw. kon naa ko man maa ko dugalaat ci grand combat yi maa ko ci dugalaat. waaw maa ko ci dugalaat. kon baal baal ci yeneen grand combat yi maa ngi ci dugalaat incha allah rabbi. maa tax nga tëggaat yeneen grand combat. di ziar ñëpp kii. laamu dem kii ak ay rakam. xaritu mbay googu la. mention spéciale. billaay wallaahi wa taalaay dañuy nekkal Lac Rose li may teg. moo koy tegoo daf ma naan teg lu ma la teg rek tegul. lu ma la teg rek tegul. après les résultats yi. waaw kon yàlla ko yàlla fay. waaw ba pare nag day bàyyi liggéeyam te bu tëj place am nii dañu war a génn nii maag moom. foo dañuy génn nii am ah, wax na ko léegi kay. waaw sama gars yi. ah mbéy mi ñii dem nañ xoow ji la nag yow a xam loolu. <laughs> loolu.